salaamaaleykum maa ngi leen di seen tur seen sant di leen jaajëfal seen taxawaay li ñu fi indi tey mooy suñu avenir kër gi ndax ñu ngi sant yàlla di julli ci yonente bi di sant ustaas mii ndax ustaas mii kat amuñu payam yàlla rek moo ñu koy fayal yàlla ñu ko yàlla fayal ndax taxawaayam ci dëkk bi wax dëgg yàlla buñ ko jàppalee dëkk bi dina avancé ndax ba mu fi ñëwee ba léegi lu jëmee dëkk bi kanam rek la bëgg ndax lislaam boo ko taxawalee si kër gi ci dëkk foo toll ngay daw ci nit ñi nañu ñëw taxaw ci lislaam jël xale yëpp dugal leen ci lislaam kon yow kenn amul sa pay yàlla rek moo ñu koy fayal yàlla ñu ko yàlla fayal benn ñoo ngi sant xale yu góor yëpp di sant xale yu jigéen yëpp maa ngi leen di ñaanal fu ñu bëgg a yegg yàlla leen fa yàlla yeggal si jàmm ndax xale góor yi déggoo nañu macha allah jigéen ñi déggoo nañu macha allah te loolu rek mooy ndam ci dëkk loolu bu amee ci dëkk rek dara desut oustaz nag ñu ngi koy ñaanal moom man fi ma li ma koy ñaanal moom sama xol dafa dafa fees dama koy bàyyi yàlla rek ndax taxawaayam si dëkk bi wax dëgg yàlla rafet na te li mu bëgg ci dëkk bi yàlla na ko ko yàlla may. ñoo ngi sant waa borom dëkk bi mooy Abdou Ka chef di sant képp ku nekk ci dëkk bi ñoo ngi koy sant di leen ñaanal jàmm yal na fi yàlla def jàmm ñii nekk si waañ bi ñii togg maa ngi leen di jaajëfal ndax barki dem ba léegi tooguñu taxawuñu ñoo ngi ci programme bi ak xale yu góor yi maa ngi leen di jaajëfal ñoom tamit di leen ñaanal yàlla yal na fi yàlla dajale waat déwén déwén ñu gën a yokk ñu gën a jàppale xale yi ci jàng bi ndax xale buñ ko jàppalee mu dem nañu góor góorlu jàppale xale yi jàppale ustaas ndax buñ jàppale xale yi jàppale ustaas kon nañ góorlu ñu jàppale xale yi waaw. tamit maa ngi leen di ñaan ñu ñëw jàpp ci daara bi ndax daara bi buñ ko jàppalee mu taxaw te daara bi wax dëgg yàlla bëgg nañu ñu ñu jàppale ci daara bi ndax mu taxaw. ñu ngi koy ñaan tamit loolu tamit maa ngi koy ñaan ñii nga xamante ne ñoo man yal nañu yàlla jàppale ñu jàppale ñu ci suñu daara bi ndax mu taxaw waaw. monsieur le maire monsieur le maire maa ngi koy woo ci daara bi madame la maire maa ngi koy woo ci daara bi nañu ñëw jàppale ñu waa Ndoyeen ci daara bi ndax waa Ndoyeen sooxe nañ de ndax waa Ndoyeen dañ leen mel ne dañ leen a fàtte ndax ñun bu dara amee ñun dañuy taxaw jàppale leen ba ñu xam ne ñoom jàppale nañ leen ndax saa yu dara amee lu ñu war a jàppale waa mairie waa mairie xam nañ ne bu ñu waxee xam nañ bu ñu waxul xam nañ ne ñu waa Ndoyeen jàppale nañ leen te ñun nag wax dëgg yàlla des ñoo des nañoo gis suñu bopp ci mairie bi loolu moom maa ngi koy laase man tamit waaw defuñu ci dara gisuñu ci dara ba ñu fi ñëwee tàccu ñu wax ñun ñu def li ñu diggee woon ak ñoom ndax ñun li ñu diggee woon ak ñoom def nañ ko képp ku fi ñëw dañ laa dëddu ñu topp leen ba ñëpp xam ne topp nañ leen waaye ñoom defuñu wax dëgg yàlla gisuñu waaw nañ ñu jàppale suñu daara bi waaw ñu jàppale ñu suñu jàkk ji ñu jàppale ñu ci suñu daara bi mu taxaw loolu daal la ñuy ñaan waaw te waxoon nañu waxu jàkk ji fii ñu ne dinañu joxe ba léegi gisuñu dara te saa ñu fi ñëwee digge dem te digge bi dem nag mën na ñàkk de ndax bu ren passé déwén dina ñëw te ñun saa ñuy fi ñëwee ñoom ñoo jël ndam fii ci Ndoye kon nag war nañoo gëstu waa Ndoye loolu moom bëggoon naa koo yeggal ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر